waaw maafe balaa neex saf dege maafe balaa neex saf dege. waaw mooy ñun ah. ah, moom mooy seen slogan ah. maafe balaa neex saf dege. kon faw dege bi bëri quoi. waaw ah, mooy tigi dege bi quoi. gerte gi gi neex de wala. waaw boobu lañ joxoon équipe nationale A bi ñuy dem kan bi. ah ñu jël waaw. jóge Russie changement ne naa ko jox maafe bi quoi. waaw xam nga. wax Koulibaly ne nañ leen jox maafe bi comme boobu léegi ñun ñu ngi gagné. te ñoom gagné ko léegi moo ni ñu jox leen maafe bi d'ailleurs médaille bi ma jox Koulibaly mu ngi si moom ba léegi nee na dootuma ko delloo sama médaille coupe d'Afrique mu ngi si moom ba léegi ah bon donc waaw pour mais tey ko woo ko ko mu indi médaille ma après mondial bi rek après mondial bi rek même bu mu même bu mu signé eh, Chelsea mu may médaille bi quoi ne fu mu dem da koy man waaw ça te portera toujours bonheur quoi ah loolu mo ko wax équipe nationale ah beach soccer dañu am affinité bu waaw benn complicité bu nekk seen biir quoi franchement c'est inexplicable quoi la la mais yow xam nga rek yow moom daanaan nga <laughs> uh-huh. moom daanaan nga loolu moom wax dëgg yàlla ñëpp ko xam gis nañ empreinte bi nga marqué tey jii nii ci football bi uh-huh. ci surtout bi soccer uh-huh. gis nañ porte bonheur nga yowit waaw parce que bi bi nga ci nekkee ba léegi macha allah parce que gis nañ léegi dañuy ñëw si seen parce que yaa ngi ni préparé seen seen seen match retour gis nañ ale bi ngeen dem gagné 9-1 ci ay difficulté sax la ñuy wax parce que gis nañ ngeen demaale ak ay complication foofu bi ngeen àggee lan a wax foofu ci yan jànkoon yan problème ngeen fa amoon waaw ñun comme d'habitude rek parce que ñun sommes ñu ici, parce que comme euh, pays africain yi moom uh-huh. des fois moom euh, ni ñu lay teralee mooy loolu uh-huh. donc euh, psychologiquement pare woon nañ pour loolu uh-huh. donc la preuve bi ñu presque def nañ 4 heures de temps si aéroport bi pour xaar bis bi bis bi ñëwaat ñu defaat yeneen 3h30 de route encore xam nga donc loolu yëpp gars yi loo xamante peut-être dañ ko planifié pour gën ñu sonal rek mais ñun psychologiquement comme li ñuy wax rek préparé nañ pour loolu parce que xamoon nañ ne bu ñu jógee rek lu métti mu ñuy xaar mais avec ça aussi nous gën ñu yokk aussi motivation ñëw mhm. ah, li au Samuel était waxoon ñoom mhm. ne que da leen bëgg sur le toit du monde sur le budget mhm. donc nous ñu une motivation et nous ñuy éliminer donc nous tam encore ah, beaucoup plus euh, d'engagement et de motivation pour wan leen aussi nous sommes premiers en Afrique et cinquième mondial donc nous avons euh, et puis loolu la ñu wane ci bi donc concentré du début à la fin bañ minimiser ko parce que nous ñuy aussi Cameroun aussi dañ demoon di inconnu parce que adversaire boo xamante ne gëjoon na si beach soccer bi depuis 2008. Mhm. donc ñun xamuñu woon lu mu indi. Mhm. donc il fallait ñu jouer prudemment et tout ça donc moo taxoon suñu waaw prudence lañ doon jouer surtout première douze bi dafa metti won ci ñun. Mhm. parce que adversaire bi aussi ak public bi. donc fugg lañ doon jouer. mais ak suñu expérience ak suñu vécu. donc euh, si lañ mujjé après nag indi suñu jeu normal. ba xam ñom li ñu indi si lañ indee suñu jeu normal nag euh, gagné avec la manière quoi. waaw waaw dañ la ñuy féliciter rek ci ci victoire bobu mën nañ wax ni mom lu lu rëy la 9-1. 1 moom mhm. wax dëgg yàlla ku ko dóor équipe mhm. war nañ leen mën a jaajëfal mhm. mais ñu ngi ñëw ci préparation match retour bi tey jii nii xam naa bi ngeen demee am nga la fa jàng tey jii nii lan ban état d'esprit ngeen nekk pour seen match retour yéen a waaw match retour bi gis nga ñu ngi koy waajal parce que boo xoolee bi ñu jógee Cameroun coach benn jour la may repos benn jour kese la may repos dañ jógee Cameroun lendemain bi si guddi gi ñu ñëw rejoindre sino dañuy déconcentré wu mhm. donc ñun euh, dañuy japp né marché bi 0-0 la donc dañ Japan jàpp ne c'est match bi bo xamné marché de notre vie pour la qualification dañuy japp né aller bi on a perdu mhm. ñun non lañ koy jappé pour gëna mëna jël marché bi au sérieux mhm. donc baña minimiser Cameroun parce que bo togué rek né 9-1 9-1 9-1 donc mën nañ am ay regret parce que c'est le football c'est le football mën nañ ñëw indi benen équipe on sait jamais mën nañ uh-huh. wat entraîneur bi mën na xool uh-huh. lacune yi donc changer ko wat yeneen jour donc lu né mën na xew motax dañ wara encore concentré wu Donc euh, uh-huh. la qualification n'est pas encore acquise. Donc uh-huh. euh, il faut jouer euh, avec prudence, uh-huh. donc avec beaucoup de concentration, d'engagement et de détermination pour les trois quarts mm-hmm. pour se qualifier avec la manière pour préparer sereinement la Coupe d'Afrique à Maputo inshallah rabbi quoi. Les dañuy ñëw si deux dernières questions yi. tu as dit que mën nañu ma wax ni Coupe d'Afrique nga joué avec équipe nationale bu soccer. waaw ak coupe nga ci jël. waaw bu ñu qualifié huit sama huitième Coupe d'Afrique. waaw donc jël naa six yi uh-huh. donc nek na 6 fois champion d'Afrique uh-huh. nek 6 fois meilleur gardien d'Afrique donc bu 2015 bi rek lañu perdre perte finale bi contre Madagascar bobu la jëlul meilleur goal uh-huh. mais depuis bobu aussi donc euh, jël nañ fois champion d'Afrique ma nek aussi 6 fois meilleur gardien avec 138 sélections ah lolu mom gis nañ ko mm. ah mm. gis nañ lolu parce que dañuy ñëw tuuti ma ngi ci avant dernière question bi rek mom ah. mom moy tay ñi gis nga comme li nga wax nonu 8 fois coupe d'Afrique mm-hmm. nga nga dem nga participer jël 6 fois mm-hmm. su jumu loolu waaw loolu ak état terrain bi ngeen nekk nii est ce que tey jii ak niveau bi Sénégal toll ci bis sukkar est ce que waru leen mën am beneen terrain boo xam ne wax dëgg yàlla non loolu kay moom defe naa loolu rek la euh, état Sénégal desel mm-hmm. président Macky Sall ma koy waat appel pour loolu mm-hmm. parce que loolu aussi digoon nañu ko mm-hmm. te xam naa ne ko aussi xam naa rappel lay doon rek parce que bi ñuy recevoir en 2021 bi ñu jëlee Bitseco bi ah nous l'Afrique, def ci Afrique waxuma sax ci Sénégal ah, Afrique 5 cinquième mondial donc je pense que mérite nañ am un euh, stade digne de ce nom pour recevoir fille ou euh, pourquoi pas organiser une coupe du monde. Ah, ah. ou encore une coupe d'Afrique Je ne sax pas coupe d'Afrique parce que nous sommes niveau instant niveau mondial pour man organiser buñ organisé organiser pour euh, coupe du monde là nous organiser donc nous ñu ngi ciy lancer appel monsieur le président Macky Sall ministre des sports Matarba aussi matarba à la fédération sénégalaise de football. pour que aussi ait am un stade digne de son nom donc pour l'avenir quoi incha allah. gis nañ ni parce que xamoon ni yaa ngi amoon benn contrat en Allemagne. Mhm. parce que après gisaat na nga ñëwaat euh, Sénégal. Mhm. parce que amone comme feebar bi amone mhm. wa xamna ni lolu tamit sénégalais yi nañ soxla touti nga expliquer leen parce que gis nañ xamna ni euh, tu es un très très très grand gardien. amna ni équipe yëpp ñu ngi lay contacter. léegi bëggoon naa foofu rek nga am loñ ci léral waaw donc amoon naa benn contrat de deux ans en Allemagne. donc benn année bi lañ ci muy 2019 bi. donc après 2020 bi ñëpp xam nañ feebar bi fi amoon corona bi. championnat amul et tout ça donc ñu profité ñibi set donc Allemagne aussi ba 2021 amul amatul won championnat bi soccer dañ ne woon dañuy xaar ba ki mhm. après lolo taxoon rek après contrat bi ñu bon mu mu jeex alam ya quoi donc loolu comprendre nañ pas force majeure la quoi donc loolu mo taxoon après bi ñu joggé coupe du monde 2021 amone don nañ préparer signé un contrat man ak Raoul Mendy mhm. man Raoul Mendy eh, Nino Sandiata ak Mamour Diagne mhm. donc amone nañ eh, ak locomotive Moscou dañ waron dem mais ba dernier moment

ko doole bien vrai que championnat bi donc ni euh, ñu ko war a valoriser waaw des na des na lu xaw a bëri uh-huh. mais fédération mu ngi def ay efforts yoo xamante nii aussi donc ñu ngi leen si féliciter leen si encourager ñu gën a yokk rek pour que xam nga gars gën a xam beach soccer parce que beach soccer bi vitrine bi mooy équipe nationale bi uh-huh. parce dina am sax gars duñ ko yëg uh-huh. mais bu équipe nationale beach soccer moom defe naa Sénégal gi yëpp koy yëg parce que Sénégal ku gagné ñoom ñaata lañ gagné rek la ñuy wax. parce que waaw parce que foo nga def appel benn yoon. ci loolu parce que foofu waaw mhm. parce que gis naa la nga vigilant. Mhm. Mhm. parce que comme li nga wax noonu gis naa nga def benn analyse bu pertinente. ne course bi gis na mën na gis ay lacunes ci ñun. changer jour indi ay jour mu nekkaat beneen match. waaw moo tax nag comme ci loolu. il faut nga def euh, benn appel boo xam ne tamit. li naan dompo sax bokk na ci sot pour appel tamit pour gën leen a waaw donc dañuy profité di lancer waat appel euh, euh, la population sénégalaise. Mhm. donc di lancer appel 12e Gaïndé à Casa. donc ñu ñëw euh, supporter sen équipe nationale beach soccer bi. Mhm. donc match bi le 6 la fini à 17h. Mhm. donc ñu ngi lancer appel peuple sénégalais bi yëpp ñu ñëw. supporter ñu un coup de main ñu gagner avec la manière. def ambiance donc comme niñ koy waxé rek donc rien n'est encore joué. donc ñu ngi leen ñaan ñu continuer di ñu ñaanal comme niñ ko daan Nous ñi mënul ñëw ñu ñaanal ñu donc ñi ñëw fii bu ñu ñëwee fii ñëw fekk fii jàmm ñu ñu joué ko si fair play gagné ko après ñu féete suñu qualification ak peuple sénégalaise bi incha allahu rabi. Uh-huh. loolu la ñuy ñaan. jërëjëf jërëjëf euh, capitaine am nañ mbégte loolu doon la def ak yow émission dañuy wax rek xam naa ni dañuy bàyyi ba incha allah mm. euh, le 6 rek. ñëw waaw ñëw supporter si. ànd ak télévision bi comme li nga wax rek xam naa dinañ fexe Asmoon TV. Uh-huh. nek partenariat sax ak équipe nationale bi soccer. ak championnat bi sax la ñuy wax lépp nañ fexe muy génn ci internet bi. waaw incha donc ñu ngi leen ñaanal aussi affaire yi nek euh, yo xam bokk si première waxuma waxuma sax africain mais mondial donc xam nga donc di leen ñaanal yalla aussi yalla defal len jamm ba fi ngeen bëgg euh télé bi àgg fa yàlla na ko fa yàlla àggal si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa jërëjëf jërëjëf capitaine kontaan nañ waaw mbégte rek ak contentement rek lañ doon defee émission bi fii tey muy As Mini Sport ñu ko doon defee fii nag ci unité ci terrain équipe nationale bi soccer ma ko doon def ak nag ak équipe nationale bi ensemble yëpp mën nañu wax ni dirigeant yi muy Ibrahima Ndiaye Chita di Mamadou Diallo di capitaine Alseni yëpp ñu ngi fi woon maanaam mën nañu wax ni daal tey contentement rek lañ fi jëlee di wax rek football di basket di lépp maanaam ci sport Asmoon TV da ciy liggéey kon nag danañuy wax rek ci Asmoon TV révivificateur des valeurs ci sport rek lay dox. dañ leen di jox dig daje rek ci beneen émission Asmoon sport jërëjëf.